mbokk yi salaamaaleykum yéen ñi safoo seetaan Senego TV senego.com tey nag euh, ñu ngi am suñu entretien exclusif ak euh, Ndeye Marème Ngom fii ci New York ci mois de novembre bi ñu nekk en même temps jóge ci octobre rose xam naa dañ ci wax tuuti gannaaw jigéen la nekk koo xam ne dafay dem ci wàllum social en même temps Euh, naka la ñuy business ci lépp danañ tënk lépp ci biir émission bi nday nday Marème maa ngi lay nuyu. <laughs> maa ngi lay fay bu baax a baax salaamaaleykum waa mbokk yi maa ngi leen di nuyu yëpp ci seen tur ak sa sant euh, di nuyu sama yaay Ramatoulaye Faye ngoom ak sama papa Mamadou ngoom ak waa Sénégal ak euh, yëpp ñu nekk fii ci biir New York ak waa États-Unis aussi mm. man la nday Marème ngoom dama base bu fii ci biir New York juddoo fii màgg fii mais man dama bëgg sama communauté ma nekk sénégalais mooy tax euh, loolu def may pousse pour defar like li ma defoon euh, si ay événement ak joxe ay information yu dem ci communauté bi euh, képp ku nekk fii bitim réew dina xam like fii dafa metti Euh, surtout soo nekkee immigrant par exemple sama yaay ak sama papa dañu nekk immigrant nekk ay ay jàmbaar macha allah nekk fii man ak samay sœurs yi xam nga euh, toppatoo ñu ba euh, toujours wax ñu par exemple lii mooy suñu cosaan il faut ñu dimbali suñu communauté bi et tout suñu màgg ak yooyu yëpp yàlla dafa def dañu jàng ba pare. léegi am ay position macha allah ñu am ay opportunité pour dimbali suñu réew ak aussi euh, communauté sénégalais ak africain Euh, léegi sama liggéey bi man um, entrepreneur la like man dama am sama business su bopp sama agence mooy Meram Consulting Agency ak aussi man maay PDG euh, pour Mbolo organisation benn um, non profit la euh, nga xam ne like dina dimbali sénégalais yi fii ak africain gu nekk fii ci bitim réew ak orop ak suñu mbokk yi si Sénégal tamit pour dimbali leen si ay matériel wala si ay ressources ngeen xam na like dañoo ko soxla foofu mhm. waaw boobu gratuite lay doon wala day doon version payant jënd jaay. c'est gratuitement. lépp lu may def c'est gratuitement. Euh, euh, par exemple euh, fii si États-Unis ñu ngi gis like suñu mbokk yi ku jaaroon ci yoonu suuf dañoo dañoo doon soxla ay information yu dem si lan mooy immigration lan mooy cadre médical lan mooy ID NYC par exemple. information yooyu yëpp c'est gratuitement. ku nekke si Sénégal tamit ñu ngi def partnership ak yeneen ONG foofu dimbali leen ci ay ressources la kenn ku soxla benn benn hôpital xëy na dañoo soxla ay matériel wala benn école dañoo soxla ay ay euh, matériel aussi dañu def tout ak suñuy partenaire fii pour dimbali suñuy mbokk yi foofu ci Sénégal euh, waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax ndimbal boobu da ngeen koo def euh, entre privé privé wala da ngeen ci lëkkaloog état pour dimbali gouvernement Sénégal. Mm-hmm. wala soit benn maire bu nekk ci commune am soxla ndimbal. nan lay mën a def ba ngeen faciliter ko mbir boobu. lépp partnership euh, par exemple fii moom so nekkee ci États-Unis euh, nga am sa ONG wala sa agence euh, il faut nga am ay partenaire su man am na ay partenaire macha allah en toujours ñu ngi liggéey pour la gis la ñu mën a def pour dimbali communauté bi wala waa Sénégal par exemple so léegi su kenn si Sénégal wooma expliquer ma lan mooy seen situation foofu si côté hôpital wala école wala euh, si daara yi tamit euh, dañu mën a xool lan ñu mën a def pour euh, indi leen ay bagage wala indi leen information wala kenn nga xam ne la kooku moom dina jóge ba fii États-Unis dem ba si Sénégal pour dimbali leen um, si côté boobu mm-hmm. uh, léegi fii ci biir New York uh, sama ONG um, dañu doon basé wu fii ci New York ci Bronx ak Harlem uh, léegi ñu ngi liggéey ak yeneen agence ak partenaire pour jox information yu dem ci immigration ak aussi lu dem si know your rights mooy nga xam sa droit soo nekk fii ci biir États-Unis loolu dafa am solo parce que soo nekkee si bitim réew wala benn pays comme New York il faut nga xam lan mooy système bi fii so like léegi samay partenaire ak yooyu dañu dimbali pour jox information yooyu si wolof wala en français pour suñu mbokki euh, africain sénégalais wala mauritanien wala guinéen mhm. jamono ji gis nañ doomu sénégalais yu bàyyi ko Sénégal jaar dëkk yi nga xam ne mooy Spain bu ñu jógee Spain jaar Managua mooy Nicaragua ñëw Guatemala mhm. wala jaaraat bi Mexico ba mhm. dugg fii United States of America dañuy am problème parce que dañuy jaar backway mhm. yoon boo xam ne US government wala US law yi daf koy tere fan lañ mën a jaar ba légal ndax da ngeen jàppale ñooñu fan lañ mën a jaar ba am seen ni waree wala fan lañ mën a jaar dem processus bi ndànk par ndànk ba ñuy mën a am Mm-hmm. soit bu ñu demander agent yoom mm-hmm. fan la ñuy jaaree ba gagné seen projet wala fan la mm-hmm. jaar ba am seen working permit pour mën a commencer liggéey biir Amérique euh, so ci commencement bi soo nekkee si biir New York dinaa commencé foofu parce que like fii you fii laa nekk et man xam naa système bi fii parce que soo nekkee ci États-Unis pays yëpp dañu am seen système bopp mais fii si biir New York par exemple soo ñu moon fii ci yoonu suuf le premier kii bi mooy euh, nga ut ID identification par exemple euh, ak aussi carte médical nga xam ne like soo bëgg dem ci hôpital pour faju wax yooyu yëpp am nga boobu ressource New York dafa am ay programme comme like ID bi ak médical bi loolu c'est gratuitement yooyukaat léegi pour ID NYC du pas euh, euh, New York State ID li benn identification la soo soxla euh, laaj pour am liggéey wala am yeneen document il faut nga bindi sa information boobu ay ID dina la dimbali ba nga mën a jot like li nga soxla woon um, si côté boobu euh, léegi pour yeneen process yi euh, par exemple am na ay avocat gratuitement fii euh, ku kenn am benn question lu dem ci affaire asylum wala refugee dañu mën a dem ba foofu pour laajte lu tax ma wax loolu mooy parce que man xam nga nag man du ma avocat yu bëri yu nga may laajte boobu question mais tout le temps man dama leen a wax rek lu gën mooy nga toog ak kenn ku jàng droit surtout lu dem ci immigration parce que immigration dafa nekk benn kii nga xam ne dafa dafa dafa kii daal dafa sensitive dafa complexe so léegi c'est très important pour toogaa kenn ku mën a la wax la par exemple lii nga mën a def pour sa cas par mm-hmm. exemple parce que cas yi yëpp bokkul mm-hmm. su rek léegi soo toogee ak kenn ku jàng loolu kooku moom mën na leen a conseil si ban way dañu mën a jaar euh, pour def asylum wala euh, even ay nit like par exemple xëy na like kenn jaarul ci asylum wala like nekk ay réfugié xëy na dina am ay sénégalais ku nekk ci biir New York wala bitim réew mais euh, dañoo ñëw fii après sen visa bi jeex par exemple conseil bi mooy nga dem toog ak kenn ku xam immigration ku mën a la conseil si ban euh, step mooy step by step nga mën a def pour am li nga bëgg incha allah. ok mhm. ndax gars yi comme ni nga ko waxee IDB la ñuy jëkkee ak Medicare Medicare suñ ko xamul mooy assurance loo xam ne. Mhm. tey soo feebaroon gouvernement bi dana la tekki euh, danañ la mhm. fexee ba faj la. te sa xaalis du ci dem state bi moo koy fay. Euh, comme ni nga waxee ñu bari dañuy ñëw. dugg rek fàtte. jàppee ko comme Europe toog. ñuy wuti te fekkee Amérique ni muy doxee. Mhm. ak yeneen dëkk yi ni ñuy doxee dafa uute. Mhm. Mhm. mën nañ la may chance nga am social security card mën nañ la may nga am working permit. ndax yooyu da ngay dimbali sénégalais yi nga xam ne ñoo ngi soog a ñëw. bañ am ci wala nag leen di conseiller toujours ñu dem ci looy. Mm-hmm. yep dañuy def referrals referrals mooy comme par exemple kenn mën nañ ñëw ba si man laaj man day marem dama soxla la par exemple pour am working permit parce que like majorité dañu soxla loolu pour liggéey fii euh, léegi sama conseil bi mooy man euh, xam naa ay connect comme ay avoca ku nekk fii mun nga dem ba ba si ñoom nga laaj leen like est-ce que like man li mooy temps bi pour ma jot sama working permit wala lan laa mën a def pour jot sama working permit mm-hmm. mais xam nga like fii moom euh, yëpp a xam like temps bi si immigration like loolu dina jël temps et man xam naa like suñu mbokk yi yëpp dañuy soxla pour euh, pour dem liggéey xam nga pour am xaalis sinon dañuy mën a suturaal seen bopp ak suturaal seen famille mm-hmm. mais sama conseil si boobu côté mooy ngeen am patience tuuti xam naa dafa metti surtout soo nekk si biir New York wala États-Unis nga xam ne fii moom euh, mu ngi commencé sedd par exemple euh, da ngay soxla ay working permit pour am liggéey bu baax xam nga mais um, conseil bi mooy um, ngeen waxtaan ak immigration wala like soo contacté ma par exemple mën naa def tout pour boole la ak ay immigrant avocat fii euh, pour jox leen conseil si côté boobu mm-hmm. parce que like man dama nekk nit ku xam ne like man if mën naa like jox conseil wala mën naa wax like mën naa def lii dinaa ko def mm-hmm. mais if man mënuma ko du ma hmm. wax rek man mën naa ko. ko d' accord ci loolu hmm. comprendre nañ ndax sa ONG bi wala sa organisation bi nga nekk ndax dinañu euh, dimbali ndax jamono seddaay wax nañ ko gis nañ hmm. ay milliers de personnes ñoo ngi fii ñi am nañ fi ñu dëkk ñu t-shirt yi lañ nekk. ñu ngi genre bâche lañ leen dugal. seddaay baa ngi ñëw te bul xam New York. seddaayam day gën a métti buy tàng noonu lay tàngee mais buy seddee aussi même chose. ndax pare nañ pour dimbali leen ak jamono ji règlement bi nga xam ne moom la New York City jël. ne su six la ñu mayee gars yi yéen pare ngeen pour jàppale doomu sénégalais ñu mën a am dëkkuwaay mhm. fu ñu mën a nekk ba sedd parce que Sénégal température bi ñuy dund ak fii mhm. yemuñu Sénégal bu seddee ba sedd mën nañ ne dix-huit la wala dix-neuf waay mhm. fii nag da dem ba moins douze moins quinze moins vingt mën na am duñ ko miin est-ce que pare ngeen pour préparer doomu sénégalais yi nga xam ne xamuñu sedd bi ak nan lañ leen dimbalee ba ñu bañ am benn problème si côté boobu dafa feebar bi. dañuy mm-hmm. am 30 jours. xam naa ci commencement bi New York daf leen a jox 90 days. après 60 days. après 30 days. mais lu bari like man dama gis par exemple du yegg si 30 jours sax. Mm. Euh, mais léegi ñu ngi xool lan ñu mën a def pour leen benn place nga xam ne dañu mën a nekk foofu parce que sedd sedd bi mu ngi ñëw. Mm-hmm. Euh, mais léegi dañu dem ci ay meeting xam nga waxtaan ak yeneen agence waxtaan ak city bi ak maire bi par exemple ak city council euh,

képp ku nekk fii ci biir New York xam na like New York dafa am problème homeless am na benn système bi système bi baaxul mm-hmm. parce que di ngay gis kenn like moom day liggéey ba sonn mais pour am appartement bu baax nga xam ne like kooku mën na ko fay euh, mën na fay yeneen bi liyaax yooyu yëpp loolu dafay metti Euh, mais pour suñu mbokk yi man li ma mën a wax si loolu ak sama ONG mooy tout le temps ñu ngi waxtaan ak ay agence dem ci site bi pour waxtaan ak mais bi ak euh, yëpp ku nekk ci gouvernement bi pour expliquer leen nag lu tax dañu soxla euh, benn place nga xam ne Sénégalais yi yëpp mën a nekk foofu wala africain dañu mën a nekk foofu xam nga ba yàlla def dañu am liggéey bu baax mën a you nekk ci seen yiteex yooyu yëpp so toujours maa ngi maa ngi si loolu nit ñi ñu ngi may contacter dafa metti euh, mais comme li ma wax la par exemple dinaa def tout like su am information ci benn place nga xam ne euh, kooku mën na dem ba foofu moom dafa génn ci shelter bi euh, dinaa ko partager incha allah mais pour instant bi léegi nii mhm. kenn amul information yu leer lu dem si shelter pour euh, bokk yi yëpp nekk ci benn place nga xam ne kenn du am problème pour génn foofu wala euh, am ay jours par exemple euh, pour nekk foofu ne après dañu tëj loolu mhm. so loolu mooy tax que sama ONG mu ngi def like li ñu mën euh, pour waxtaan ak euh, nit ñi fi yu am doole euh, pour dimbali africain yi fii si côté boobu. Mhm. ci wàllum clandestin yooyu gis nañ du mhm. ay góor kase mais bari la ci jigéen. Mhm. est-ce que am ngeen nombre bi ndax des fois am na ay jigéen ñu leen di. rencontré wala ñu leen di boole ay jigéen ñu am jafe-jafe. ñëw ci dëkk bi. jaaree yoonu Nicaragua bi ak Guatemala bi. dafa bari jigéen ñi fi man gis naa famille sax gis naa famille nga xam ne like dañoo ànd ak seen doom juste pour ñëw fii ci yoonu Nicaragua wala Brésil par exemple euh, léegi pour jigéen ñi xam naa like loolu dafa gën a metti parce que like soo nekkee jigéen yow andoo ak like euh, sa frère wala kenn nga xam euh, nga ñëw ba fii like yow toujours yow di ngay xalaat lan nga mën a def pour like suturaal sa bopp um, so loolu mooy tax tout le temps man su may gis jigéen yi fii dinaa jël seen information waxtaan ak samay moromu jigéen ku am ay business parce que fii macha allah uh, ci biir réew mi ak New York ak États-Unis am na ay jigéen yu bëri et dañu am doole dañu am seen salon dañu am seen agence dañu am seen liggéey yu bopp léegi dinaa leen woo par exemple pour laaj leen est-ce que dañu am benn connexion wala est-ce que dañu am place sinon jigéen yooyu mën am liggéey xëy na lekk liggéey boobu euh, jigéen yu bari bëggul def loolu xëy na lekk loolu day dem ci wàllu lëtt par exemple mais loolu moom mooy commencement le tout tout toujours damay wax loolu la xam nga la il faut nga commencer fenn euh, mais macha allah jigéen ñi fii ku am ay place yu baax la tout le temps maa ngi waxtaan ak yoom pour autre solution pour suñu moroom jigéen ñi mais euh, dafa difficile dafa difficile nga nekk jigéen nga ñëw ci benn réew yow xam nga yow xam nga yow xamoo kenn en euh, si kaw loolu yow na nga nekk jigéen. Euh, mais tout le temps ñu ngi wut solution pour gis lan ñu mën a def et solution boobu du man kese ku mën a def loolu like dañoo soxla communauté bi yëpp pour ñëw you know you know jàppale like euh, suñu mbokk yi ak yeneen organisation ak euh, agence ñu nekk fii macha allah communauté sénégalais fii dañu def tout. like yow di ngay gis kenn kii kii dina am 10 dollars jox ko si suñu mbokk yi pour am am jëla 10 dollars bi pour jënd dara nga lekk wala di nga gis kenn ku am salon like kooku dina ubbi nam pour wax like yow mu nga toog fii ba time yu yu yu tëj par exemple ax yeneen ax yeneen euh, mbokk yi fii yu ngi def li ñu mën pour dimbali suñu you know suñu frères yi suñu sœurs yi yu jaaroon ci yoonu suuf mm-hmm. à part loolu sa organisation lan mooy objectif am loo xam ne loolu la bëgg def ba mu mm-hmm. amal communauté sénégalaise bi nga xam ne ñoo nekk fii ci mm-hmm. euh, New York mm-hmm. wala ci biir United States njariñ euh, so léegi mbooloo euh, is an organization dinaa ko wax ci anglais après kii ko si wolof um, our goal is to amplify the voices of the African community in the continent and also in the diaspora mooy um, organisation nga xam ne dañoo um, bëgg waxtaan like ci pour autre solution pour africains yëpp yu nekk fii si bitim réew wala Afrique euh, pour nekk seen seen avocat ci boobu côté parce que dañu gis rek par exemple dina am ay famille fii xëy na kooku dafa yàgg ci dëkk bi kooku xamul information lu dem ci wàllu école pour doomam um, suñu organisation dañu am ay partnership ak Department of Education mooy suñu département ak éducation fii uh, pour dimbali suñu mbokk yi fii ku soxla information pour sa doom pour dugg ci um, école fii si biir New York par exemple dañu am referral system boobu pour wax na lan mooy système bi ci boobu côté loolu mooy benn exemple beneen exemple mooy lu dem ci santé euh, santé moom c'est très important pour nga am cadre médical comme li ma waxoon euh, avant mais système bi tamit euh, pour comprendre like lan ñu mën a def pour am ay docteur wala like soo soxla ay spécialiste et tout lan ñu mën a def pour like find la benn docteur wala benn spécialiste si boobu côté ak yeneen ak yeneen daal dañu am benn système macha allah ak suñu partenaire suñu partenaire yu bëri dañu nekk ay avocat dañu nekk ay directrice dañu nekk ay consultant dañu nekk ay professeur ak yeneen ak yeneen dañu am doole ak aussi specialisation ci ay côté euh, pour xelal africain yi si euh, lu bëri parce que nañu gis like fii moom surtout soo nekkee ci États-Unis nga nekk africain Um, ah, pour tubaab yi surtout pour respect euh, africain loolu dafa jafe nga gis loolu parce que rek soo nekkee nit ku ñuul toujours dañu la bàyyi si xel wala wax la ay yeneen kii parce que kenn bëggul gis africain avancé loolu mooy réalité bi léegi suñu organisation toujours yu ngi xeex. ak boobu mentalité pour wan na nag africain yi ñu ngi fii macha allah ñu am seen business parce que like ku am business ci biir États-Unis ubbi seen boutique wala am seen agence par exemple yow yaa ngi def tu peux fay taxes and taxes boobu day dimbali réew bi. so like par exemple nekk ay avocat pour expliquer leen lii mooy tax dafa am ay business dañu soxla funding funding mooy euh, dañu soxla xaalis ba dañu soxla kenn pour investir seen business si côté boobu et loolu c'est très important parce que tout le temps di ngay gis yeneen xeet yi comme espagnol yi wala tubaab yi wala jeuve yi di ngay gis like seen seen agence wala seen business dina am doole et loolu yëpp day loolu yëpp day am parce que dina am kenn foofu ku mën a leen jox conseil wala direct leen ci ban côté dañuy mën a dem pour am investment wala tabax yeneen kii et tout so loolu moo tax mbooloo euh, dama ko establisher pour dimbali suñu africain yi fii ku nekk ci bitim réew ak aussi soo nekk si Sénégal euh, wala yeneen pays yi foofu euh, pour like dimbali xam nga like nit yi ko soxla you know ay ok suñu mbokk yu nekk africain ni dañoo soxla dimbal la ñu mën a def pour like gérer loolu um, man mii dama ko def um, mbooloo c'est organisation dama ko def à hommage ci sama frère Adama Ngom uh, yàlla dafa def lak moom dafa gaañu yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana fi daw si mais moom dafa nekkoon africain ku gëm boppam so loolu ma tax en tant que kenn ku gëm boppa boppam man dama oh, every time I talk about my brother is something kon moom nga ci rendre hommage euh, frère boobu. moo tax nga organisation sinon like mën naa dimbali africain yu nekk si Europe. Mhm. wala nekk ci bitim réew dañoo soxla information ay resources dimbal. Mhm. Mhm. Um, lu dem ci avancement. so loolu ma tax mbooloo la man dama ko créer ci boobu part. ndax bokk na da rentre koy rendre ci loolu ndax daf yow da nga jël. continuer ci tànk yi mu tegee woon pour. Euh, amal ndimbal bi muy def. Euh, um, moom moom. Euh, moom dafa nekkoon Allemagne. Mhm. nekk jàmbaar foofu. Mhm. temps bi moom mu nekk foofu xam nga léegi dafa metti nga nekk euh, si Allemagne wala nga nekk euh, mhm. immigré. en yoon bi moom mu jaaroon sax dafa metti moom mën mën naa wax like moom. c'est la même chose comme suñu mbokk yi yu jaaroon ci Nicaragua. parce que sama sama mag dafa jaaroon ci gaal. et après jaar ci biir loolu. xam nga ba egg ci Europe. Oh. <laughs> egg foofu moom dafa jëkk euh, ci Spain après dem Allemagne ba yàlla dafa def moom mu góorgóorlu Sorry ah. like moom um, dafa doon dafa jaaroon ci gaal après egg ci Espagne euh, ci Spain après liggéey am li mu amoon après dem ci Allemagne macha allah nekk ingénieur foofu euh, moom mu nekkoon Allemagne. et mhm. toujours rek moom dafa doon dimbali communauté sénégalaise et um, toujours rek moom dina ànd ak ay nit mooy ci ay booloo pour waxtaan xam nga lu lu dem ci yàlla lu dem ci communauté eh, ak yooyu yëpp. Mhm. mais tout le temps tamit rek moom dafay nekk si boppam parce que rek moom macha allah dafa nekkoon nit ku ku xaw a timide Mm-hmm. macha allah. Mm-hmm. Uh, mais yàlla dafa def you know ay mm-hmm. bërëm and après euh, vingt mille. mooy taamu Covid 2020. Um, dafa doon dafa doon jouer football après gaañu foofu. ok waaw. moom mu ngi bàyyeeku benn doom. e moom mu ngi Allemagne léegi nii. Mm-hmm. so loolu mooy tax euh, depuis time boobu ba léegi man dama wax lan laa mën a def pour pour. dimbali communauté mais aussi def ko à hommage ci moom. parce que like moom dafa doon fonk dafa fonk. Euh, Euh, sénégalais. fonk boppam xam nga. lii yëpp dafa dem ci mbooloo. Mm-hmm. xam nga so loolu mooy tax euh, dama jël tur boobu. Mm-hmm. mooy coming together to make a difference il faut ñu ñëw comme benn. pour mm-hmm. make difference si àdduna bi. parce que like soo nekk africain fii. soo soo nekk si communauté bi ak nit yu bari ñëw dimbali la jàppale la ci boobu côté loolu dafa am doole. so soo surtout soo nekk ci États-Unis mhm. euh, nga gis sénégalais mhm. yëpp ñëw par exemple euh, nekk benn mhm. wala yeneen xeet yi af euh, nigériens yi wala ghanéens yi ñëw nekk benn loolu loolu mooy doole waaw so loolu mooy tax man dama créer um, mbooloo et um, ba léegi macha allah ñu ngi góorgóorlu ndànk um, c'est le nouveau kii organisation mais ñu ngi def tout ba dimbali suñu mbokk yi waaw d'accord lan moo nekk euh, projet yi euh, Ndeye Marème ci lan la jublu mhm. instant yi voilà mhm. lan mooy projet yi nga xam ne mu nga war a teg mhm. ba tey pour dimbali la communauté africaine um, so léegi nii um, maa dama defoon benn événement mooy Pathways to Progress um, benn euh, événement boobu dama doon dama bëggoon africain yi wala sénégalais yi surtout ñu ñëw foofu pour jot ay information ak yeneen kii dañu soxla Euh, avant taamu sedd ñëw par exemple. Mhm. dañu ko defar ci association bi euh, sénégalais. Mhm. fii si en um, yu bëri macha allah dañoo ñëwoon dama amoon ay partenaires sama partenaire yu bëri dañu doon dimbali pu jox ay information mooy lu dem ci. côté ID NYC wala droit pour xam um, santé dafa amoon benn agence foofu um, expliquer leen ban genre test di ngay soxla rek if nga nekk ci euh, réew bi par exemple ak aussi kenn ku soxla carte médical lan nga mën a def pour jot pour euh, jot carte médicale bi euh, ak yeneen ak yeneen dañu doon joxe ay kii yu bari xam nga mais loolu yëpp mooy juste pour pour wan suñu mbokk yi te am na ay sénégalais fii ñu ngi def tout pour dimbali seen situation xam naa like xëy na loolu bariwul parce que like soo nekk fii toujours yaa ngi xalaat lan nga mën a def pour am liggéey wala like lan nga mën a def pour am like fi nga dëkk mhm. um, and tout le temps comme li ma expliqué ñu ngi ñu ngi jéem pour like out solution ci biir loolu mais avant solution boobu ñëw mhm. dañu def li ñu mën mhm. et mooy collaborer ak yeneen agence ak compagnie ak ay partenaires um, and sama partenaire yooyu dinaa leen am um, tudd mooy Yasin Orphans par exemple uh, dañu amoon African Service Committee Gem Care the Red Cross association sénégalaise dafa euh, nekkoon foofu si mm-hmm. ak yeneen ak yeneen sama mm-hmm. partenaire defa doon bëri macha allah. Euh, mm-hmm. yes euh, à loolu ndax ku la bëgg a fan la mën a jaar yaa ngi amee website wala ci social network yi pour mën a jot fondation bi nga xam ne mooy mbooloo léegi so pour mbooloo mën nga type mbooloo org en Instagram après xam naa li nga ko bind fii so mbooloo organisation si biir Instagram mm-hmm. léegi pour sama agence mooy Maram mm-hmm. Consulting Agency mm-hmm. um, suñu Instagram page mooy The Maram Agency um, mun nga ma contacter foofu directement so soxla ay information ak yeneen ak yenen pour ñu dimbali ci wàllum immigration dimbali ci wàllum naka ngay nekkee fii nii stable voilà exactly exactly and am naa benn numéro sama numéro business um, ku soxla ay information contacter euh, foofu directement. Mhm. Um, surtout soo nekk si New York parce que yeneen état yi moom man xamuma seen système. mais New York ku waaw ku nekk New York moom. Mhm. moom mun na ma contacter euh, ku soxla ID wala carte médicale. Mhm. wala ku soxla avoca um, mën naa leen dimbali pour like am referral dem si kenn ku mën a dimbali leen si côté boobu. Mhm. mais man du ma avocat loolu laa bëgg man du ma avocat mhm. um, lu dem ci wàllu immigration tout le temps damay wax nga bàyyi ko ak kenn ku jàngaloo jàng loolu xam système bi bu baax c'est vrai <laughs> d'accord ndax ñi jóge jaar ci yoonu backway bi mooy ñi jaaree a Nicaragua mhm. la ndax ngay dimbali wala ñi nga xam ne dañuy ñëw visa bëgg a changer change mind toog liggéey ndax jigéen ñi nga xam ne dañ fi ñëw aussi parce que bari na ci jigéen ñoo xam ne dañ fi ñëwoon après bëgg a def mariage pour mën a am ay papier ndax ñooñu ñëpp da leen di dimbali xool nan la ñuy sàmmee bopp ci mhm. côté boobu ndax ñoom am nañ tey programme bi nga nekk mën leen dimbale ci ID mhm. ak ci ma Euh, Medicare Medicare mm-hmm. genre mel noonu. nan mm-hmm. la def ba ñu am ko ndax programme bi ci lañ bokk ñoom. waaw pour africain la. pour sénégalais la pour ñëpp la. pour ku nekk fii. Mm-hmm. surtout su nekk euh, ku kenn nekk New York par exemple. et yow da yàgg fii da nga soxla kenn nga xam ne lay kooku dina la conseil si ay affaire lu dem ci éducation pour am liggéey et tout da nga yàgg fii. mën naa la dimbali si côté boobu parce que nag loolu mooy base suñu organisation. Um, c'est la même chose pour kenn ku jaaroon ci yoonu suuf. def tout pour dimbali la pour euh, you know jox leen ay information dañuy soxla pour avancer aussi. d'accord kon ma bàyyi la nga tàggatoo rek ak suñu mbokki internet yi. Mm-hmm, waaw euh, kontaan naa trop Seydina dinaa jëkk ak yow parce que yow moom macha allah kontaan naa trop ak suñu mbokk yi yëpp yu nekk si Sénégal nekk fii ci biir New York euh, maa ngi leen a nuyu di la sant bu baax a baax a baax sama support yi tamit man gis naa yu bari sénégal yi tout le ngi may contacter ñu ngi may encourage. Um, kontaan naa trop merci gis naa support bi um, and of course sama yaay ak sama papa parce que sama yaay ak sama papa tamit dañu nekk dañu nekk ay jàmbaar ba léegi ñu ngi fii xam nga ñu ngi góorgóorlu et um, boobu jom dafa nekk si ñun loolu mooy tax tey nii mën naa toog fii pour dimbali suñu mbokk yi parce que mm-hmm. éducation de base mooy lépp so maa ngi sant ak gërëm sama yaay ak sama papa bu baax a baax a baax. d'accord merci beaucoup. jërëjëf. boobu une heure de temps la da nga mën a